moom dinaa ko am mais jaar ja jama ko ma quoi. <laughs> am na ñoo ñaareel moom bu moom moom bu soobee yàlla moom. Euh, du kan moo mooy sama coach du man man kay coaché wu ma kenn. ah bon bon kon kon bàyyi ma teg. yéen sama nijaay amagul di leen coaché. bàyyi kon bàyyi ma teg bàyyi wax ji suuf kon. ñii ñii ñii amuñu xel sax. da <laughs> amuñu benn ñoom ñii. ñaar ñii amuñu xel de. Ah. <laughs> non mais coach célibataire yi ñoo ñoo gën coach yëpp. ah en tout cas en tout cas. waaw mais... mais déjà Pape bon écoute euh, euh, nouvelle bi noonu nañ ko yéegee ñun ñëpp di ndokkale couple bi euh, di leen souhaiter heureux ménage ñoom ñaar ñëpp. waaw di ñaan yàlla may leen ci njaboot gu barkeel ko mhm. waaw mais li nga wax nag dëgg la de am na ay guddee ay guddee wàcc nag. ay guddee wàcc instant yow xam nga ni xam nga ni boo guddee tee wàcc madame du la ci bàyyi. instant yi nii kii liggéey Walfadjri nekk marié ñii di jë yu ak keneen na ci bokk yam wax nga dëgg bu fi guddee wàcc dinaa noo seega Cheikh Niass sama fi woo woon di ma naan nii madame xel bi dalatul de xam na ni comme gars yi kay moom léegi dañuy taxal ñu ngi may laaj ban heure ngay wàcc hmm, dinañ ko laaj dinañ ko laaj sànq ba ñu may laaj mais garaawul amul problème yàlla buur bu baax la hmm. euh, comme euh, voilà comme daal euh, yàlla def na ci li gën rek nañ ko sante suñu borom waa nijaay man kañ nga may yónni fan ci ma am également une pensée Euh, sunu naataango bii di Pape Ndiaye. Pape Ndiaye oui. Euh, gannaaw bi ñu ko yóbboo fële ci Sébi Fataan. Mhm. Euh, di di encore métit lu situation bi mu nekk mooy arrestation mhm. di ñaan également bon nattu bi que sunu borom teg yàlla nag ko teggil ni mu gën a gaawee. waaw di ko wax nag ne que bon les gens feront tout le nécessaire pour qu'il recouvre la liberté quoi voilà. ciao Pape. ñu ngi koy ñu ngi koy masaw bu baax a baax a baax papp Ndiaye moom suñu suñu frère la euh, te voilà euh, fi mu nekk suñu prière ak suñu xel ak lépp mu ngi koy accompagner euh, te dinañ ko kon ne di ñaanal dinañ ko kon ne aussi di def lu ñu mën ba foofu mu jóge fa parce que du voilà du du du këram du fu mu war a nekk. place am mi ngi si wetu njabootam place am mi ngi si euh, biir Walfadjri fii euh, comme ni ñu ko nekk di defee ni sekk jàmm ak salaam wax suñu xalaat ci réew mi euh, partage aussi suñu ay conviction te voilà te te dara du la ci dara du la ci fekk aw Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay nijaayu jàmbur naan la nag kañ nga may yónni itam dina am solo. Hmm. waaw ci koor gi. ban ci koor gi di ñëw. Hmm. ñu war la di taajal ndogu di teggi am na ci solo de. beneen affaire moo nar a graaw grand plateau. xaw ma lu mu tudd sax euh, salon d'honneur. salon d'honneur. salon d'honneur. ah. salon d'honneur dootul amati ay guddee de. ah macha allah yàlla baax na tabaarkàlla kay tabaarkàlla tabaarkàlla mais Moustapha Moustapha Moustapha nante nga nag yaa ngi may dégg xam naa ko mais nante nga Moustapha nante la. Moustapha dafa àbbu fit njaayeen yi njaayeen yi la àbbu fit nag. li xale bi naan doo xool Moustapha mi ngi doon xool <laughs> voilà comme niñ ko waxee euh, damay suivre les pas de euh, Pape Sané rek également di wax ne Pape Ndiaye on de tout cœur avec lui fu mu nekk na xam te ne weetu fa ñu ngi ci ay euh, mbiram lépp mu occupé suñu ay pensées également te du def suñu kéem kattan ci lépp lu ñu mën ngir fi nga xamante ne fa la nekk mu jóge fa comme li may wax journaliste moom prison du fi nga xamante ne moom moo di place am pas matin loolu day indiwaat rek dépénalisation des délits de presse nañ ci wax nañ ci waxaat et également di soññ confrères yépp nañu jug taxaw temb ne xeex bi ñuy xeex du Pam Ndiaye lañ koy xeexal du man lañ koy xeexal du yow du Pape Sané du keneen c'est la corporation c'est le journalisme moo xamante ne la ñu bëgg nasaxal ci réew mi loolu la ñuy euh, xeexal te yaakaar naa ne waruñu toog ne tekk tekkaaral ci li nga xamante ne moo di xeex bi tey mutisme bi kenn mënul expliquer lan la jur mais yaakaar naa ne au niveau de Walf on va mettre en branle quelque chose également pour euh, li nga xamante ne moo di Pam Ndiaye ñu mu nokki ngelawal feex ku ñu ci fekk si ñu xam ne ñun sóob nañ ci suñu loxo sumb nañ ci ndax ñu ni neen la également pamata également di souhaiter un très joyeux anniversaire sama benn grand boo xamante ne sama grand sama xarit la sama confident la muy euh, Medoune Sey borom tawfeex sëñ Medoune Sey borom tawfeex également ñu ngi koy souhaiter en très joyeux anniversaire naan ko na dund na wér ndax dundam ci réew mi am na njëriñ. en tout cas di leen nuyu encore une fois Sénégal yi bàyyi seen euh, yitte yëpp di ñu bàyyi xel bu baax a baax fii ci biir réew mi ak si euh, diaspora bi ñu ne si diaspora bi nag souvent ci page YouTube Walfadjri nañ ñuy bàyyi xel ku mel ni Sophie Seck seen Dieye. Euh, moo du Niass euh, ñi ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci page euh, YouTube bu Walfadjri ak Paco ak yooyu jamono ji ñu ngi toll ci presque 4000 et quelques personnes di ñu bàyyi xel encore une fois Pape Ndiaye dañ koy souhaiter rek bon courage parce que voilà loolu rek nañ si mën di ko ñaanal di ko ñaanal bu baax a baax di ko xamal ni que duñ ko fàtte ci ñaan duñ ko fàtte ci lenn nat parce que. Euh, suñu frère la liggéey kase boolew ñu ndit ku baax la ndit koo mhm. xamante ni boo ko xamee da ngay gis ni nditu kersa la mhm. du sax sigi xool nit euh, liggéeyam amaana mooy tax ba sax baatam di jug mais du du koo xamante ni dafay dafay wax baatam di jug ci kaw a kaw mhm. dañ koy euh, masaw di masaw aussi njabootam alors ñu tàmbali waxtaan bi rek waxtaan bi lu ma bëgg ñu waxtaanee ko tey ji bokk na ci manifestation bi nga xamante ni waa Yewwi Askan ni bëgg nañ ko amal suba incha allah fële ca terrain ACAPES mi ngi mel ni ni euh, ñoom waa pouvoir bi wala en tout cas ay kuréel yu ne ci euh, benn bokk yaakaar ñi ngi jug euh, di def comme ni ñu ko tàmm di def